Quel est le message que vous avez à l'intention de, de l'opinion D'abord, euh, rendre grâce à Dieu de nous avoir permis d'être témoins et depuis quelques minutes acteurs de ce grand jour d'expression démocratique. Comme nous le constatons, le peuple est en train de sortir et d'exercer son droit de se choisir ses représentants à l'Assemblée nationale. Il le fait dans le calme et dans la sérénité, dans la pure tradition démocratique sénégalaise. Voilà pourquoi j'ai les acteurs politiques dans la campagne électorale à faire preuve de responsabilité pour battre une campagne apaisée sachant que le jour venu, le peuple aurait la même posture de grandeur qu'on lui connaît et qui fait la fierté de tous les concitoyens, de tous les compatriotes sénégalais, qu'ils soient d'ici ou de la diaspora. La maturité démocratique, c'est aussi des acteurs responsables qui s'affrontent par les idées et par les programmes qui parle au peuple dans la sérénité et dans le respect mutuel et qui laisse à ce peuple le droit fondamental qui lui appartient exclusivement de se choisir ses représentants ou ses dirigeants. Pour le reste de la journée, j'invite à nouveau les électeurs, qu'ils soient citoyens simples ou candidats, qu'ils soient tête de liste ou investis, à faire preuve de sérénité, à jouer pleinement la carte de la paix et à recevoir la volonté populaire qui sera exprimée à travers les urnes par une sérénité et une acceptation qui fait le jeu démocratique. Il y aura toujours des vainqueurs à l'issue de cette élection. Il y aura aussi des vaincus. Mais en définitive, c'est le peuple sénégalais qui sera gagnant. Et nous avons tous l'obligation morale de préserver cette, euh, de préserver cette, euh, cette appréciation et ce jugement que la communauté internationale nous porte et qui est empreinte de respect en ce sens que nous constituons une exception que nous devons à tout prix perpétuer génération après génération. Euh, yan kàddu nga yëkkati gannaaw ba nga voté fii ci Njaanjaay. di sant yàlla bu baax gannaaw bu ñu mayee ñu fekkee ko tal ko ba matal suñu yéene mooy dem voté ji. niñ ko seetloo nag fii ak ci beneen centre bi ma àndoon ak euh, soxna si madame la première dame sénégalais yaa ngi génn ci dal. ak ci seen teyeefu bakkan di dem wone seen tànneef ci ñi nga xamante ne ñoom lañu bëgg ñu teewal leen ci pencum ndaw réew mi nii nag sénégalais yàgg nañ ko doxale ndax am nañu mat gi te yàgg nañu wane ne saa yu élection ak lu coow li bari bari bari dinañ dem ci dal ci jàmm dem wote ñi ndànk seen kër ci ngoon si ñu joxe résultat bi bët set ku ne demaat ci li nga nekkoon mooy sa iite. loolu moo tax bu ñu doon dugg ci campagne électorale bi ma doon waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci nguur gi ak ñoo nekk ci kujje gi te jiite ay liste électorale wala ñu am fu ñu féete te di ko fësal doon leen woo ñu nawlante mayante cër te tamit xam ne Sénégal gii ñoo ko moom. te liñ ci bëgg a def ñu nekk ci kujje gi wala ci nekk wala ñu nekk ci nguur gi duñ ko mën a motal lu dul ne dañ koy def ci jàmm ak ci dal gannaaw bu ñu yàlla mayee nag ñu am askan gu am dayo gu ñu am ci mat ak ci maturité démocratique xam lu mu bëgg te bés bu jotee mu fësal ko ci jàmm acteur politique yi nag ñoo war a def ñoo war a góorlu ba nekk ci niveau bi askan wi toll loolu daf ñuy may bu ñuy dem campagne électorale ku nekk nga dem ci jàmm waxtaan ak askan gi ci jàmm fësal sa programme askan gi déglu ñëpp bu bés bu jotee mu doxal nu mu faral di doxale bés bii tey nag bés bu am solo la ci démocratie sénégalaise ndax fee nga xamante ne foofu la ñuy xëccoo pour dem te muy yoon du xëccoog ñaaw ñaawoo du xëccoog xiiroo du xëccoog ŋaayoo waaye noonu la war a demee ndax ku ne dafa yëkkati loxo ne damaa bëgg teewal askan wi askan wi nag moom moom baat bi mooy jox ku ko neex foofu li ñu fay doxal dafa am solo solo soo xam ne tànneef bii nii buñ ko defee fii juróom at yi di ñëw bu soobee yàlla lépp loo xamante ne moo nar a wàccaat ci askan wi ci ay lu ñuy wate ci sart yu tegu ci ñëpp foofu lañ koy defee li ñuy watoo tamit ñi nga xamante ne fal nañu leen am na juróom-ñetti weer ci gannaaw muy président de la république ak ñu mu àndal foofu lañu koy defee kon assemblée nationale bërëb gu am solo la ba bu ñu fa dee tànn tànneef gi war na tànn doon tànneef goo xamante ne gannaaw déglu programme la gannaaw seetlu ndax ay ndaw la ñoo xamante ne bu ñu leen yónnee duñu leen mën a woowaat ñu dellusiwaat ñu remplacer leen tànk jama ngi am te tànk ak diir gi ñu leen appal matul kon li may ñaan ñi nga xamante ne ñoo nekk di wote am fu ñu féete que ñu nekk ñoo xamante ne wote rek la dem dem toogaat wala mu nekk ñoo xamante ne fësal nañu fu ñu bokk ndax ay militant lañu wala ñu nekk ñoo ñu jiit ay liste nañu ànd ak dal li des ci bés bi ndax taaru bés bi mu commencé ñu mën ko eggalee noonu duggee nañ ko ci bismillahi rahmaani rahim yal nañ ko yàlla may ñu mottale ko ak alhamdulilah rabil alamin loolu nag li koy maye mooy segem processus bi bëriwul coow ci xëccoo ci diggante acteurs yi ndax dañ ci fësal. Euh, tëddee njaaxaanaay lépp lu ci nit waroon am ci àq jox nañ ko ko ba mu mat ni ma ko diggee woon ne dinañ am ay ay élection yu régulière yu démocratique ak yu transparente matal nañ ko ba fi ñu toll nii li ci des nag mooy ku nekk respecté sa àqu moroom ba luy fësee ci urne yi ci mbañ gàcce yi ñu xam ne askanu Sénégal lii la tànn te nuñ ko nuñ koy tànnee noonu nag gannaaw day wax na la peuple est souverain maanaam askan wi moom moom baat bi ku mu ko jox ñu nangul ko ko noonu te xam na Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar waaye doxal lii indi jàmm wareef la ci ku ne nga nekk ci kuje gi wala nga nekk ci ñi nga xamante ne ñoo jiite réew mi ànd ak ñun wala ñu ànd ak ñoo xamante ne ñoo nekk ci liste majorité présidentielle bi li laa bëggoon a fësal ci kàddu di ñaanal sénégalais yëpp ñu am bésug jàmm te yàlla may ñu ñu matal lépp loo xamante ne yéena la ci yéena gu rafet ci bés bi ba nañ koy defee saa su ne ñu koy bàkkee Afrique te ñu am responsabilité générationnelle tamit perpétuer ko maanaam fësa wéyal ko yàlla may ñu ñu matal ko incha allah rabbi te loolu rek mooy li ñuy sàkku ci ñëpp ñoo xamante ne ay acteurs lañu ci bés bi muy bésu bés bu mag ci démocratie sénégalaise. jërëjëf jërëjëf monsieur le président <laughs> euh, donc euh, waaw. merci beaucoup donc. Euh, <laughs>